télévision Futur Média ñu am mbégte àndaat fi ak yéen ci soir d'info war a waxtaanee xew-xewu bés bi ak li xew diggante dem ak tey bokk na ci li ci gën a fës euh, ca Sigicoor incident yi am diggante waa kër Doudou ak waa kër Ousmane Sonko. Euh, ngir yaatal waxtaan wi ci it passeport diplomatique yi sommet France Afrique bi fi amoon dinañ dikkaat ci élection locale yi ñu dëgmal janvier 2022 mu Ndiaye Cissé lañ ciy àndal ñu am mbégte àndaat ak moom mu Ndiaye Cissé ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu Ablaye Der di nuyu nit ñi seetaan ñëpp ci TFM muy góor mu jigéen. di ñaan yàlla njëriñ mu jege suñu waxtaan bi. ONG 3D di yëngu ci wàllu euh, société civile les germes de la violence ni ñu ko tuddee gis nañ ni. Euh, commencé na. Euh, mhm. déjà ca Ziguinchor te yeggaguñu ci local yi diggante waa kër Doudou Ka ak waa kër Sonko version yi bëri na mais yéen ak retrait bi ngeen ci am société civile gis-gis bi liggéey bi ngeen def ci processus électoral bi ba ñu yet si war a voté ji ñu bëgg ci rax loo xam ni vraiment ñu ñu ñuy tëgg ñuy tëgg përëm ci mbir mi mhm. euh, nu ngeen ko gisee. d'abord dañ koy ñaawlu violence moom si bu ñuy jëm ci élection. Euh, confrontation yi dafa war a nekk ay confrontation d'idées confrontation de programme mu am ci jàmm moo tax damay faral di wax ne enjeu élection yi ñu jëm nii ginnaaw enjeu de transparence bi enjeu de euh, défi organiser élection yi ci jàmm la parce que boo xoolee ne euh, fu mu toll nii njaaxare am na lu ñu gën a jëm élection présidentielle ñu gis ne violence yi mu ngi gën a dem te violence li mu mën a jur dafa bëri violence mën na jur dafay nekk menace yi suñu démocratie nekk menace yi suñu stabilité Casamance boo ko jëlee xam nañ ne euh, fu sensible déjà Casamance boo xoolee histoire am boo xoolee trajectoire am indi fa fitna yu mel nii je crois que Casamance soxlawu ko mënoon nañu ko xalaatee feneen beneen feneen sax dafa ñaaw masse Casamance. Mm-hmm. effort yi ñu def yëpp ba jàmm commencé fa dellu si je crois que indi fa genre violence yi fu mu mënti jógee je crois que lu ñuy ñaawlu la mm-hmm. alors beneen Euh, bettul kenn aussi parce que déjà à partir de mars gisoon nañu ay ministre juddu gisoon nañu ay nervi di am et non seulement ci euh, acteurs politiques yi mais ci aussi surtout au pouvoir et loolu bees ci Sénégal ñu gis nervi yi gën a nekk euh, parti au pouvoir xam nga boo jëlee ay nervi ay milice indi leen recruter leen même bu jàmm amee sax ñoom dinañ jéem a créer jafe-jafe pour mériter seen salaire le fait rek de recruter un nervi c'est un problème psychologique parce que boo jëlee ay mbër wala nga jël ñeneen ne leen dama leen jël pour ngeen sécurité fii pour ku fi yëngatu nga def lii mais boo leen jëlee benn yoon defuñu ko defu indiwuñu fitna wane ne am na njariñ euh, dañu ñaareel yoon du leen jël donc jël nervi jël milice déjà c'est un problème leneen li muy indi mooy day tax indi lu ñuy wax loi du talion fayantoo mhm. tey jii bu fekkee ne parti au pouvoir wala euh, beneen parti fu mu mënta jóge ñëw ànd ay milice di dal ci ay yeneen askan ñooñu bu yàggee dañuy jël seen i matukaay mhm. tey jii boo xoolee ñu dal ci kaw Sonko Sonko dina xalaat ne moom war na aussi ut ñu ko encadré ñoo xam ne dañuy aussi am ay ngànnaay pour bu ñu dalee si kaw mu mën a registré que soit Sonko que soit yeneen partie de l'opposition du PDS wala yooyu donc milice fu mu am nervi fu mu am mooy dem ba indi ay confrontation armée alors bu ñuy donc jugul si mbir mi si confrontation armée la ñu jëm mm. confrontation armée mooy dem ba indi après ay guerre civile mm. wala guerre ethnique wala yooyu alors te man bu may jàngat euh, situation réew mi fu mu toll dafa mel ni dañu entouré de carburant wala de essence di foyee ay bougie di foyee ay allumettes parce que booy xool ñun la violence vers euh, vers vient vers nous boo xoolee le Sénégal est entouré de feu mhm. boo xoolee Guinée Conakry boo xoolee Mali mhm. boo xoolee li ñu wër yëpp mu ngi tàkk Guinée oui ñun ëllëg ñu xool nu ñuy résister parce que dëkk yooyu ñu wër yëpp bu ñu sañoon mel ni Sénégal mhm. mais ñun violence yi mu ngi ñëw ci ñun ëllëg ñu jéem ko arrêté ñun ñuy créer violence suñu biir. Mm. loolu lu ñuy ñaawlu la et nguur gi war na jël ay matukaayam. Mm. jël ay dispositions yu ferme quel que soit fu violence yu jógee mu euh, mu xeex ko. Mm. surtout bu jógee nag ci ñoom. te moment bi ci ñoom la gën a feeñ. alors je crois que tool nañ foo xam ne fu mu toll nii parce que li ñu jot a gis. loolu nañ foo xamante ni képp kuy leader politique maanaam coalition de parti war a jëm ci élection bi élection yi nguur gi jox leen ay force de défense yu leen di protéger parce que ñooñu ils sont professionnels parce que bu ñu bàyyee ku nekk jëlal say milice bopp ku nekk jël say nervi bopp confrontation armée lay am mu indi coow bu ku nekk amee milice donc am du ñu ay professionnels du ñu xam nu ñuy même protégé ak donc war toll nañ foo xam ne Sénégal nguur gi war na jël décision ne. parce que force de défense et de sécurité ñun ñëpp a ko bokk suñuy impôt leen di fayee. ba pare ñiy dem ci xeex yu euh, politique bi dañuy joxe costion xaalis ba war na jariñ dara alors war nañ toll foo xam ne ñu ne euh, képp ku am liste de parti dañ mettre à ta disposition euh, sécurité de l'État mu lay gunge ci fi ngay dem. ñooñu ay professionnel boo gisee ni sécurité ci mbedd mi rek euh, doyul bu ñu bëggee jël list yëpp ni nga wax affecté ku ci nekk euh, ku ci nekk. balaa ñuy yegg foofu boo déggee ma wax loolu xam nga dama lay jox ay ay yeneen solution. voilà lu mu mënti doon loolu c'est-à-dire xam nga jarul xeex xam nga violence franchement violence bi mu ngi nekk ci bu leader yu mag yi di déplacé. exactement leader yu mag yooyu war na mu ñu ànd ak quelques forces de sécurité et de défence beneen bi mu war nañ mën a génne Euh, disposition boo xam ne dañuy wax kuy jël euh, sécurité mu dem ci agence de sécurité agrégée yi nga xam ne ñooñu sax am nañu tuuti ah. professionnalisme et bu ñuy assurer sécurité euh, leader wala acteur politique buñ ko def par de façon partisane nañ koy mhm. def par professionnalisme mais danger bi ñu nekk fu mu toll ni mooy ku nekk nga jël sa propre milice ku nekk jël sa propre ngànnaay dëkk yi ñu gis ni tey jii muy tàkk amoon na moment tàkkuñu mais bi ñu bàyyee ku nekk di fajal sa bopp. si la commencé tàkk. donc c' est c' est, c' est grave ce qu' on laisse les comme ça parce que élection locale rek la ñu wax mu toll fi mhm. imagine bu ñu demee si élection législative. après ñu war a dem si élection présidentielle ñuy wax aussi waxu troisième mandat yooyu. Mhm. enjeu yi day gën a day gën a am doole. alors donc moi je pense que ki ñu war a gën jëkk interpeller mooy l' état du Sénégal l' nag il est neutre normalement. donc l' état doit prendre ses fexe ba nga xamante ne violence bi. fu mu mënti jógee mu maate mu kii ko mu mu mu mhm. euh, faj ko mhm. surtout bu jógee ci ñoom parce que ñoom ñoo war a jëkk ñu war a joxe euh, exemple mhm. mais tey jii violence du jógee ci nguur gi ça pose problème oui alors ñu des donc euh, comme ñi ngi chapitre élection ndax euh, prétexte bi loolu la euh, local yi ñu dëgmal yan perspective nga ci nga ci gis à part bu ñu waxee waxu violence ak ni nga waxee li ko mën a saafara locales yi xam nga dafa mel ni genre premier tour présidentiel. Hmm. parce que li tax locales yi am enjeu mooy euh, opposition bi dina bëgg wan nguur gi ne ko day pare ngeen. Hmm. dee ngeen doy euh, Sénégal yi bëggatuñ hmm. leen. nguur gi dina bëgg wan euh, bien opposition bi ne ñoo fi nekk ba léegi. donc looloo jox élection locale yi enjeu yi mu toll. alors que élection locale nguur gi waroon na ci sax ba ñu dugg maanaam la majorité ba mu feeñ. ndaxte. nit mun na nekk sax tey PDS. Mhm. dëkk ci gox. Mhm. gis koo xamante ne gox ba ki fa nekk. am na mérite yore maire bi te bokkul ci benn parti sax moom ak ak. mu watal ko nit ki mën na nekk APR. Mhm. gis sa gox ba koo xamante ne PDS te mooy njariñu gox bi mu jàppale ko. parce que élection locale affaire gox la ku mën a suqali gox du kii parti bi la nekk wala kële parti bi la nekk. donc loolu muy benn ci affaire euh, élection locale yi ñaar bi mooy ñu jàpp ne élection débat d'idée la débat de programme la. du débat de muscle. Mhm. doole du, du mhm. confrontation de muscle. et Sénégal ñu ngi commencé dem ci boobu fan. et c'est pourquoi maa ngi rafetlu aussi euh, imaam yi ulema yi initiative bi ñu jël. pour commencer ci dox d'ailleurs ñun on va les recevoir jeudi mhm. euh, la plateforme Jàmmi Réew mi nga xam ne plateforme société civile bi yëpp ko bokk euh, mais mu njaay moo ne de sëñ Muntaxa ci màggal bi xalif général ku ñu koy ziar au passage mhm. dafa mel ni tamit li moom déjà gisoon na ko mu ngi yegg si ndax ci màggal bi dans son discours avertir na artu na oui mais ku am ku mën a seetlu xam ne mhm. fu lu ñu gën a jëm ci élection yi mhm. mbir mi gën a tàng mhm. lu ñu gën a jëm ci législative yi ak élection présidentielle yi mbir mi gën a tàng mhm. parce que enjeu yi moo bari alors donc mais enjeu yi lu mu bëri bëri nañ ko def ci euh, teg ko ci yoon muy waxtaanee ko ba euh, ku mën ci idée ku mën ci programme yi ngay teg nga jël élection yi sans que direct tour sans que et puis et eh bien ñu rayante parce que euh, bu ñu bu ñu rayan balaa nga ne ne fa mhm. dëkk yi rayante yëpp xoolal dañuy dellu ginnaaw rek mhm. donc ah. muy opposition muy mhm. parti au pouvoir war nañu fexe ku nekk def appel euh, au calme au calme à la sérénité ba ñu dem ci élection yu calme moo tax ma ne défi élection yi jëm nii défi la organisation bi ci euh, dans la sérénité et dans la paix Euh, étincelle yépp mu ngi commencé takk et donc dara nañ ko fay surtout état bi moo am responsabilité faj ko commencé ko ci moom fi nervi yi nekk parce que boo xoolee mars gisoon nañ nervi yi mm-hmm. xam leen ils étaient identifiés mais amul suite mm-hmm. loolu mooy favoriser l'impunité mm-hmm. il faut pas qu'on qu'on aille dans le sens de donner une prime à l'impunité faire en sorte que ñi nga xam ne dañuy def lu ne fàng nga xam ne lu ne fàng kenn du ko jeex eh bien ñu leen di bàyyi. yëg-yëg boobu nga am yëg-yëg boobu am ci passeport diplomatique yi par exemple coow bi ci am ak trafic boo nga xam ni dañ ci euh, cité député yoo xam ni dañoo bokk ci majorité bi. mais passeport euh, passeport diplomatique yi moom dafa dafa dafa grave dafa nekk une menace même si suñu euh, diplomatie de façon mm-hmm. générale. Mm-hmm. xam nga booy xool affaire passeport diplomatique da ngay tiit même si suñu démocratie. Mm-hmm. parce que dafay wane suñu défaillance su état civil. tey bu ñu mënee. Euh, def euh, faux et usage de faux ba mën a am passeport diplomatique nga xam ne fi muy jaar yëpp pour ñu valider ko tey euh, assemblée nationale dafa war a joxe cutisam mu jaar présidence joxe cutisam mu soog a dem affaire étrangère nit ki mën a def trafiquer benn mm-hmm. papier d'état civil pour am ko donc tu peux te dire mais attends nit ki aussi bu fekkee ne am na alal am ay moyens war na mën a def trafic de certificat de résidence pour am pour am ay carte d'identité mm-hmm. donc affaire passeport diplomatique yi dañ ci war a jël recul xool ne suñu état civil bi war nañ ko xoolaat. donc hmm. rendre ko plus fiable. alors mais suñu état civil fiableul bu nit mu nee dem di def ay dix mille certificats de mariage war na mën a def dix mille certificats de résidence. Hmm. donc dem am carte dantité moo gën a war a euh, moo gën a euh, yomb am passeport diplomatique. Hmm. bu demee ba ñu ko mën a def à euh, de façon même à une certaine échelle. y problème. donc suñu état civil bi dafa jot. ñu xoolaat ko. et chaîne de responsabilité yooyu yëpp le président Macky Sall war a xool sanctionné parce que bu ko deful fu mu toll nii passeport diplomatique gu Sénégal dootul am benn valeur. tey jii boo yoree passeport diplomatique boo demee war nga am jaaxle parce que di nga ne euh, même bu ko réewu taax yi waxul. Mm-hmm. am na problème dinañ xam ne. ñoom léegi ñu ngi bàyyi xel ci passeport diplomate Sénégal visa léegi euh, mais donc première mesure bi président Macky Sall waroon def mooy annuler mm. tous les passeports diplomatiques mm. mu nekk un signal fort wane ne am na volonté assainir ci affaire passeport diplomatique mais mënuñu bàyyi mu mel ni dara xewul mm. ñu am problème bu mel ni ci passeport diplomatique nga xam ne euh, instrument bu rëy la pour réew parce que gis nga ne passeport diplomatique euh, lu mu mën a euh, permettre ci mhm. askan. ci juntukaay yi gën a solo la bokk. oui mhm. Nelson Mandela mos nañu ko jox diplomatique. Ah, pour mu mën a voyager. Mhm. ak ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii Guillaume Soro. oui déjà pour dire que passeport diplomatique outil la boo xam ne réew waru ko fooye ba mu mel ni euh, kayitu gerte caaf. et donc président Macky Sall pour man waroon na bu liy amee bu ministre des affaires étrangères di Dawres. wala ministre euh, yeneen yi ko séq di daw res moom mu jël ses responsabilités. kon jàpp nga ni Aïssata Tall ni mu waxee. Euh, pour man euh, pour man waroon na waxee neneen lu dul nii. Mm. et je suis d'accord avec yaa xam quand il dit mm-hmm. que dafa dafa protéger boppam bañ a bañ a mettre en pâture le le président de la République. Mm. je di que mais le président de mooy le premier responsable. Mm. parce que moom bu yi amee. xam na ne passeport diplomatique sénégalais bi léegi fu mu toll amatul benn crédibilité. Mm-hmm. dafa war a jël mesure bu fort mm-hmm. première mesure moo doon annuler tous les passeports diplomatiques. Mm-hmm. aller sur de nouvelles bases. nouveaux critères pour joxe ay passeports diplomatiques. buñ ko defee euh, dëkk yi ñuy seqal euh, ay relations diplomatiques xam ne y a une volonté. au moins de réhabiliter le passeport diplomatique sénégalais. mais buñ ko deful passeport diplomatique sénégal day mel ni euh, kii gerte caaf. alors donc papier gerte caaf war na jël ay mesures fort si boobu ba pare mu am assainissement mu am plus de sérieux et de rigueur ministère des affaires étrangères bi ñuy defee passeport diplomatique war na am service d'investigation mm-hmm. mais dëkk day am ay ay service secret day am ay ay renseignements généraux mm-hmm. bu fekkee ne yow yaa ngi jot en tant que institution de la République ay ay ay euh, euh, disons ay certificat de mariage nga commencé xam ne lii eh bien am na problème. oui mais nga def ci investigation gis député buy mais depuis buy takk buy fois. mais attends il y a un laisser assez. Mm. allez donc depuis douzième législature est-ce que demul ba depuis onzième législature. Mm. donc ñaata faux trafic lañ ci def ci affaire boobu. d'ailleurs Pape Diop euh, l'ancien président de l'Assemblée junj nañu lu mel noonu. disant que bon. Euh, du lu bees. du lu bees. Mm. et donc ça veut dire que le mal est plus profond et. Mm. au-delà des passeports diplomatiques comme j'ai dañu war a xoolaat suñu système état civil parce que suñu état civil pose problème ku mën a def trafic ba am passeport diplomatique war a mën def trafic ba am ay carte d'électeur et loolu day sappe crédibilité suñu élection mm-hmm. parce que c'est lié c'est parce que aussi c'est toujours l'état civil ya yaa yaa dellu si waat ci élection je rebondis dessus rationalisation calendrier euh, électoral bi juillet 2022 normalement war nañ def législative maanaam falaat député yi mais est-ce que euh, boo moytul duñ ko dàq ndax maire yi dàq nañ ko dàqati ko dans le cadre du dialogue politique waxtaanu waxtaanuñ ci waxtaan nañ euh, euh, ci dialogue politique bu lu ñuy rationaliser le calendrier électoral mm. mais dañ ne ñu ngi koy dàmbali après élection 2024 mm. parce que élection après 2024 kenn jàppagul ay date ok mais élection yi ñii dañu am mandat ba pare seen mandat mm. wala jeex oui élection exception la war a doon. Hmm. warul nekk règle Sénégal dañ commencé ko def dàq élection règle. mun hmm. nañu jàpp ne à partir loolu la dialogue politique bi d' accord hmm. que bu ñu waree rationaliser euh, euh, calendrier électoral bi maanaam wàññi nombre élection yi ñuy def par. ci euh, ci cinq ans yi nañ ko def tàmbalee ko ba après élection. 2024 mais munoo ñu xam élection 2024 xam kañ la war a nekk. xam élection législative kañ la nekk. nga bëgg a commencé wax ab rationalisation. Mm-hmm. dañu war a organiser élection yooyu à date échue. Mm-hmm. Euh, parce que buñ ko bu ñu ko jéemee rationaliser mooy dàq yeneen mandat mm-hmm. mooy que ne dinañ jël mandat député yi. doxal ko bu boobaa kay bu ñu doxalee sax kon élection présidentielle kenn warul wax. parce que mandat mandat la. donc dañu war a di respecter calendrier électoral bi bu ñu nee dañuy def élection tel date. que ñu mën ko def tel date. yokk mandat dafa war a jeex parce que day indi illégitimité. ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, ci institution yi te institution dafa lax légitimité. Mm. xoolal euh, maire yi depuis kañ la seen mandat jeex. Mm. presque trois ans ñu toog loolu la Ivoirien di woowee mandat cadet. mais du ñu am benn légitimité. Mm-hmm. du ñu am benn horizon di de ce point de vue du ñu projeter di réaliser dara ci maire yi après budget yëpp fonctionnement lay de mm-hmm. dañ koy politiquer. bu ñuy waaj dem ci élection ñu jàpp ne du xamuñu kañ la alors dañ koy daax wala duñ ko daax dañuy jël xaalis di ko politiquer. Hmm. alors que euh, loolu du dëgg du yoon. Moundiaye Cissé euh, da nga wax benn moom légitimité sommet France Afrique bi mujj am àjjuma Montpellier la woon bi passé Macron woo euh, ay activistes société civile yow boo ko ci ñi woon. non xam nga. lan moo ca gis-gis ci ndaje. non xam nga ndaje bi. Hmm. dafa am ay problème ci forme bi d'abord. Hmm. Euh, premièrement mooy que ne buñ nee dañuy waxtaanee problème Afrique Afrique dañ ko war a waxtaanee loolu mooy le principe bu jëkk am. Hmm. beneen bi mooy euh, sommet bi occasion la ñu woon jël ay euh, ñi nga xam ne dañu gisul seen bopp ci niñ France di yore. Hmm. mais casting bi dafa am problème nan nga mën a defee yu mel noonu ñi nga xam ne surtout ñooy porter combat yu xeex ni France ñëwee noot ñu. doo leen ci invité nga invité soi-disant ay intellectuel rek problème du problème intellectuel rek. du hmm. nan nga mën a waxee yu mel noonu. mais il des activistes qui n'étaient pas qui ne sont pas universitaires également dama ne par exemple boo jëlee Sénégal. Hmm. ñi nga xam ne ñoo porté combat wu euh, xeex France nu ñu nootee invité wuñu leen boo jëlee ñi nga xam ne ñoo porté combat wu xeex France CFA bi ñu si bëri invité problème bi deuxième problème de forme casting bi beneen bi mooy Macron s'est présenté comme président wu Afrique bu colonisé. à l'insu de ce de ces ministres euh, maanaam les présidents africains mm. et problème de forme la parce que ñu ngi def juger les présidents africains à leur absence mm. mënoon nañu au moins <laughs> jël ay ministres des affaires étrangères ñu teew parce que on faisait le procès mm. des présidents africains ça ça euh, à leur absence problème de forme beneen bi mooy tey Afrique warul toog di nekk wagon Euh, euh, Occident nekk locomotive tey ji Afrique dafa war a négocier selon ses intérêts hmm. et pour euh, ça il président africain ñoo war a gën a am fulla parce que mënuñu fi nekk déjà Macron am na mérite parce que Macron sax jël na initiative convoquer hmm. la jeunesse africaine tey président Union africaine waroon na mën a jël initiative mel noonu déglu son peuple ñu dem vers la CEDEAO des peuples mais Macron loo ko mën a critiquer ci loolu sax mu ngi def moom il est dans son rôle parce que mu ngi défendre les intérêts de la France parce que le sentiment anti-français dafa commencer jël ay proportions yoo xam ne dépassé na chef d'État africain yi. Mm. donc Macron se dit que c'est la jeunesse là africaine mon problème c'est pas les présidents africains et donc comment je vais gérer les jeunesses mm-hmm. africaines mm-hmm. moo leen. mais genre genre genre. kii ay dóor la. ay dóor la quoi xam nga comme ils sentent qu'ils perdent pied dans l'opinion publique euh, mhm. africaine. ci mhm. en tout cas ci dëkk yu bëri. c'est une manière de se remettre en selle et dans le jeu. avec avec avec cette jeunesse africaine. oui parce que il se dit que euh, bu dee président africain rek la la compter du dem. Mhm. parce que euh, les les jeunesses africaines sont commencent à développer un sentiment. anti-français oui. et et et ça les gêne. Mm. et déjà mu tëb leen pour man c'est pas élégant. Mm-hmm. alors ça veut dire aussi que président africain war nañ xolaat seen bopp. Mm-hmm. xoolaat seen bopp ci seen rapport avec seeni i peuple la question du troisième mandat ñu koy waxee France mm. la question du troisième mandat ça veut dire que Union africaine dafa dafa nekk euh, dafa dafa yir mm-hmm. par rapport ak l'Europe mm-hmm. tey Union africaine moo waroon déglu jeunesse africaine ñu waxtaan ci question troisième mandat ñu dugal ko ci protocole additionnel u CEDEAO mm-hmm. mu jeex mu mu ñu jàll ci leneen way mais dem ba France di régler ay problème u Afrique loolu loolu africains yi nañu jàppee seen bopp que ne Euh, Occident moo leen gën a soxla. Mm-hmm. tey jii Afrique russe russien nga leen di dragué. oui euh, chinois yi japonais yi turcs yi mais pourquoi ñu war a continuer rek toog France di ñu dóor marque. Mm-hmm. il faut que ah, mais loolu mun a nekk xool accord de pêche yi. Mm-hmm. bu dem di négocier de façon séparée Union européenne ñu dóor ñu marque. jël suñuy ressources halieutiques yëpp lekk parce que. nit dañuy wax booloowuñu mhm. de sorte que dañuy dem on est fragilisé ñu ñuy dóor martu rek alors donc union africaine il faut que mu servir à quelque chose mhm. nekk syndicat ah wala CEDEAO nekk syndicat bu ñu benn wàccee benn président coup d'état mu nekk di yuuxu wala mu teg di wax naan nañu rétablir l'ordre constitutionnel c'est pas ça mhm. Union africaine dafa war a nekk déglu le peuple africain xam aspiration peuple africain yi le peuple africain est réfractaire à question du troisième mandat. Mhm. et loolu du pour Sénégal rek fépp fu ñu def affaire troisième mandat mu indi coow. fu muy mujj du neex mhm. du neex ci ki koy imposer du neex ci peuple bu parce que mhm. imagine ce qui se passe en Guinée xoola temps bi ñu perdre yëpp xoola ñi fa dee ñëpp ak in fine fu mu mujj donc je pense que africains yi jeunesse africaine ñooñu am nañ mérite ndaxte au moins posé nañ les préoccupations de, de maintenant question bi c'est surtout des questions de forme de, forme, de de de Il y a quelques questions de, de fond et, oui, de fond aussi. de fond maanaam débat yi ñu posé bon mais quand même c'est un premier pas nañu fexe ba prochainement bu ñu koy def ñu defee ko Afrique. Mhm. et préparer ko de sorte que eh bien bu ñu si jugee mu aboutir à des choses yu concrètes yoo xamante ne ni dina tax Afrique euh, aller vers l'émergence. ñi leen di jiiñ société civile buy politique loo leen di tontu. ah man de xam nga société civile fa bari. xam nga di gis ñu ne presse xam nga société bi dafa am diversité. Mhm. et c' est mhm. peut-être am na société civile politique. man sama bopp laa xam. Mhm. man musuma am carte parti. man musuma xalamal benn parti. muy opposition muy pouvoir. et bari naa ci morom. moo tax du ma ne man rek. boo jëlee ci presse bi c' est même chose. am na presse boo xam ne da ngay jàpp ne bu ñu defee seen une da ngay xam ne dañu dañuy politique. dañuy faral euh, soit pouvoir wala dañuy faral opposition. man damay laaj damay laaj yow la engagé loolu ngay wax. waaw ah, mais dafa am dafa am yow xam nga da ngay yow observateur nga mm. chroniqueur nga. Mm. xam nga ne corporation yoo mm. gis dina ci am ñu taxawee taxawee ndey ji seex taxawee taxawaay boo xam ne irréprochable am ci ñoo xam ne aussi dañ ciy taxawee taxawaay bu ñuy. taxawaayu ndey ji seex bi ngay wax noonu bu ñu la joxoon ministère des élections créé ko comme ni may wax pour. Euh, une personne indépendante gérer ko est-ce que di nangu loolu. man waaw organiser des élections. Hmm. par principe man du ma dugg ci gouvernement. Hmm. man je me dis que société civile ko utiliser comme tremplin pour dugg ci gouvernement. Hmm. société civile boo ci nekkee danga ci nekk. boo ci nekkul xam ne nekkoo ci. parce que am na ñoo xam ne nekk ñuy société civile ñoo xam ne aussi faruñu fenn. ñoo xam ne ay personnalité indépendante lañ ñu mën a gérer ministère des élections et ça c'est important que ñu am ministère chargé des élections bu uteek ministre de l'intérieur parce que ministre de mun na def liggéey bu. mucc ayib mucc mais Aly Ngouille Ndiaye def na liggéey bu mucc ayib ah. ci côté sécurité ak yooyu nañ ko wax te de. Mm, mm, mm. mais bu fekkee da ngaa far. mais loo def def nit ñi duñ ko gis moo tax dañu war a séparer ministre de l'intérieur ak ministre des merci beaucoup ñu ngi may pression euh, à la régi pour dire que temps bi xoj nañu ñu lay gërëm di la sant mu Ndiaye Cissé léegi léegi rek Cheikh Diop dina fi teew yaatal xibaar yi gannaaw page publicité bi lay doon jërëjëf